kese kese kese mënoon naa bàyyi euh, autorité administrative yi wala ministre de l'intérieur ak yenn jëwri ji ñu géré ko keroog bi may ñëw Colobane dama ne dama fa ñëw ci turu président de la république am message buñ ñu doon délivré kon defe naa euh, sëñ bi wax na ko léegi ni mu amee. Colobane la amee fépp daanaka ci Sénégal muy constat général ñu nag na Sénégalais yi ñoo fal son excellence le président Bassirou Diomaye Faye te bi ñu koy fal dañ ko jox mandat bu leer ñu koy fal sexalul nit ñi suukar séddalewul xaalis dafa ñëw ak programme teg ko ci jub jubal ak jubbanti teg ko ci defar réew mi teg ko ci yoon te yoon weesuwul li nga xam ne mooy ay charte yu ñu tëral ci pàcc bu ne ñu fexe ba ñépp doxal ko te ñépp yem ci nag amul boroom daraja amul néew di doole ñaareel bi am mooy te boobu day nekk ci ñaari côté yi parce que loolu dama koy wax ci turu gouvernement bi ma jiite ak ci turu président de la république mi si wax na ko léegi kenn du fajal boppam ci réew boo xam ne république la parce que loolu anarchie lay jur kenn du fajal boppam ku fajal boppam yow sa bopp nekk nga hors la te ñun duñ ko nangu te on prendra toutes les mesures net li nga mën a def mooy constater alerte bàyyi nag ñi war a def ñu def noonu la réew di doxee kon souvent dafa am ñaar yenn problème bi mu commencé am gis nañ ñenn ñu ne way waxuñu ñu woon lii war nañ ñu et cetera déedéet cest à suñu gouvernement du si biir benn pression wala benn chantage ñépp la njaboote te dina leen njaboote teg ko ci yërmande mais yërmande dàqantewul nag ak fermeté parce que léeg sa doom bi nga jur sax defe naa kenn jurul doom ba pare ñàkk koo yërëm waaye léeg-léeg sax nga karawaase ko tuuti parce que def na lu ëpp kon quelque fois pour le bien des gens et pour le bien collectif di nga dëgëral fu dëgëral waree mais dañ ne ci réew moo xam ne rapport bi am diggante bi daan am bokk diggante état ak nit ñi mooy toujours rapport de pression la de chantage de menace bu état bi deful lii ñun lii wala état bi war nañu wala dootuñu ko woteel wala wotewuñu ko woon ngir lii déedéet ñun nekkuñu ci dynamique gu xool ay mandat mandat boo dee ñëw rek dina ñëw yàllaa koy joxe lañ ci war a def nañ ko def mais mandat bi ñu jox nii pour ñu defar réew mi li ñu ci war a def pour réew mi defarul nañ ko def bu ñu yeggee ci cappaandaw sénégalais bu ne dina xool est-ce que résultat ñëw na wala ñëwul. mu mu xool nu muy tànnee ci base boobu moo tax autant duñu duñu nangu ay riverain bi régler seen bopp autant it commerçant mënul ne sama njëriñu bopp rek laa xool ba tax dañ ma war a bàyyi parce que ndaw laa dama war a liggéey ah suñu deful lii dañuy dem agressé ji wala dañuy dem déedéet bëgg a liggéey du tax nga keneen loolu tam mënul ne et y a un juste équilibre à trouver entre tout ça li nga xam ne lu leer la te lu ñu mënul nangu te instruction yi ñu joxe nag fépp la ci marché yépp ci senegal ci fépp la mooy tali bu ñu defar nag boo ne ko defaral koy trottoir mënuñu nangu nit ñëw bloqué tali boobu ba oto mënatu faa jaar kooku moom duñ ko nangul kenn parce que loraange weesuwut loolu dërëm bi mu war a am warul tax ñu bloqué benn tali carrément ba oto mënu faa jaar kooku du bokk ci tolérance bi école xam nga jàng dafa am lu mu àndul man ma ñëwee Ziguinchor am na école boo xam ne li ko wër yépp ay cantine lañ ko defoon te waa école bi ñoo luwee cantine mais dama ñëw ne dañ toj cantine yépp parce que école àndul ak cantine tout tànk bu am cinq ans sept ans huit ans war a dem jàngi jaxasoog mbooloo moo xam ne lu ne mën na ceene loolu amul sax sécurité donc li nekk ci école bi nañu fexe ba école bi mën a fonctionner correctement te xale yi nekk en sécurité pour seen njàng kooku tam ay directives la yoo xam ne yu leer la bërëbu fajukaay wax dëgg yàlla amul lu ëpp solo bakkan ak santé loolu moom mooy loo xam kenn du ko lam-lami donc fi nga xam ne nit ñi dañ fay dem faju ji donte dem na ba jaxasoog marché bi nañu fexe ba danger bu amee ñuy évacuer nit dugg génn bi war naa doon lu yomba yomba yomb kooku tam mënul bokk ci tolérance bi bu weesoo loolu nag yaa ca des lañuy ñaan ñépp muy riverain yi muy commerçant yi mooy ñu muñalante tuuti ñu muñalante te commerçant yi doon ñoom seen bopp ñu doon les premier euh, euh, surveillants de propre comportement ñoom seen bopp lii ma wax nii ñu tënku ci loolu ñoom bu amee ci seen biir ku war a jargati loolu ñoom ñu njëkk a jóg réglal ko seen bopp loolu day am solo parce que day day day doon benn gaz de responsabilité bu ñu defee loolu la ñuy wax population yi mooy muy population koloban muy HLM muy euh, marché joor muy euh, Kër Massar muy feneen ak feneen Ziguinchor Touba mooy la ca des na doon lu ñuy muñ tuuti. parce que problème yu am depuis vingt ans trente ans quarante ans du ñuy régler ci ñetti fan lu ñuy régle la ci benn planning ak benn stratégie kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen euh, jaajëfal di leen soññaat esprit bi na continuer doon lii parce que problème mu métti métti métti rek gis ngeen li fi xew Sénégal avant élection yi te fi mu mujjee xam nañ te suñ ko jiital suñ jiitaloon loolu peut-être lu bari du fi am ñun ñëpp ay sénégalais lañ nañuy rafetal di diisoo di waxtaan di wut ay solution su solution amul suñu biir ay kilifaa ngi fi ñu yet kilifa yi man def naa loolu moo ci ëpp solo kenn ku ne di waxtaan ak njabootam waaw kenn ku ne di waxtaan ak njabootam di leen euh, woo ci su responsabilité waaye di téye seen loxo it suñu buggee ëppal ndax ndaw moom léeg-léeg yaram day gaaw a tàng te foog na ni mun na fajal boppam lépp mais je crois que tant que ñu ngi doxalee noonu nañ trouver des solution yoo xam ne incha allah du am problème kon ñu ngi leen di gërëm bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah